léegi li jaaxal nit ñi mooy euh, monsieur le ministre euh, DG jamono yi depuis tabaski daaw c'est-à-dire au mois de juillet 2022 mhm. vous faites la une des journaux mhm. te au lieu mu nekk ci wàllu politique mais cette fois-ci wàllu fait divers mhm. d'abord yow coow li depuis juillet ba léegi naka nga ko dundee xam nga coow li euh, méttiwuloon trop dékku lu tax. xam tax. parce que c'est un fait dama xam ne xale bi jigéen bi ma jiiñ xam na man xam na yàlla suñu borom moo ñu gën a jege suñu buumu xol te moom gëmul nelawul xam na. on parle de viol DG. dégg li ma la wax ma ne yàlla bi ma teg natu bi xam na ne. billaahi wallaahi taalaahi barke al ci barke alxuraanal karim. moom xam na ne xale bu jigéen bi ma jiiñ muy Adama Thiaw jeune les l'ai pas violée je n'ai même pas tenté de la violer moom xam na ko yàlla suñu borom kon da ngay xam ne tout de suite lii nattu la bu la suñu borom teg nga war koo mën a muñ puisque ginnaaw nattu bi am na lu mu la dencal te man loolu laa gëm te loolu ñëwagul léegi nag je suis un homme je un humain ñu jiñ la loolu au moment où j'étais à Fatick en train de battre campagne pour les législatives un groupe de dames bien coachées di dem ci médias yi di battre campagne contre moi di victimiser wu di ma accuser de viol au point que après les élections bi ma voté ba pare ba gagné à 75 pour cent pour le compte du président Macky Sall et de l'APR et de Benno dama ñëpp si rek ñu ne ma le le le procureur t'a convoqué je n'ai même pas eu le temps de faire une seule réaction. mais yow xam nga ne convocation boobu dina am ndax yaay victime bi wax na nee na dem na gendarmerie bu Foire. dem na avant hôpital ainsi de suite yow wax na ak yow tante nga sax médiation tenté nga atténuer mbir yi. loolu gêné wu woon xam nga li tax xamoon naa ne kabal la boo xam ne ñoom dinañ dem jusqu'au bout mais gis nga bi ma yëgee ne le certificat médical que cette dame là m'avait présenté disant que le médecin a attesté qu'il y a bi ma yëgee ne c'était faux. au contraire tout ce qui est écrit sur le certificat médical me disculper sama conseil daf ma ne demal nga campagne lii du dem fen fii lay yem certificat médical bi setal na la et c'était ça et ça la décision normale gis nga Khaliphone Sall bi ñu ko jiiñee certificat médical bi lañ doon xaar daa génn rek ñu jël la thèse du viol teg ko fële poursuivre ay coups et blessures mais on l'a pas fait pour moi pourquoi mais yow avant wax nga ñoom yaayam sax mais justement mardi bi wax na aussi Walf TV émission di balance la dem on me l'a dit quoi mais suivre ko euh, gis nga jouru accusation bi bi ñu jógee hôpital dañu ñëw sama kër ne dañu jël si yére xale bu jigéen bi suivez bien leur jeu ces dames la comprend pour des innocentes dañuy koppartu xaalis la ñuy wut te ñu ngi berné une bonne partie du peuple sénégalais. mais yow proposé nga leen xaalis te ñoom jëluñu ko. non déedéet déglu ma la rek yow tam. Adja loolu la yaay ji wax. bul yàkkamti. d'accord proposé wu ma xaalis déglu ma rek. d'accord biñ ñooy jël si bagage dama leen ne kaay toog ñu toog ma ne leen seen doom day fen day kàcc soskat la kenn laalu ko fi kenn defu ko dara ñu ne ma ah kañ yaay ji ma ah kañ kayitu docteur baa ngi nii bind na ci dañ ko ma ne ko jël leen seen bagage ngeen génn sama kër. ñu jël bagage yi génn sama kër ma toog réfléchir ma ne bon yow koo xam ne kii laaloo ko mu génn na la danga ko violé sa ça doit être un complot et un complot on y on y on y on y met les manières je di suis est-ce que xale bu jigéen bi avant ñu ko yóbbu hôpital est-ce que elle ne s'est pas faite des blessures au niveau de son sexe genre blessure yu ndaw tuméfier ko tuuti kii pour que le médecin bi nga xam ne moo koy égal ci taabal bi foog ne y a une agression sexuelle ma ne loolu yëpp c'est possible puisque c'est un complot mais je voulais avoir le cœur net sur kayit bi mu brandir sama kër ne ma mu ngi ni docteur bi bind na ko ma woo leen téléphone ndeketee ñoom loolu lañ doon xaar defoon nañ le travail préparatoire ba pare xamoon nañ ne damay woote. kon yow loolu moo taxoon nga oote. c'était pas pour vous excuser. déedéet mais yow enregistrement bi dégg nga ko y a fenn amul bu ma excusé woon rek ce serait un aveu kon tey jii maa nga kaso amut fenn bi ma leen wooyee rek ñu déclaré seen enregistrement ma ne leen léegi dama bëgg ngeen ñëw ñu waxtaan ngeen wax ma li nga bëgg li ngeen bëgg ma defal leen ko même bu ngeen même bu ma ko amulee ma uti ko jox leen ko boobu xam nañ ne bu ñu ñëwee certificat médical bi dinaa ko xool te certificat médical bi amu ci dara luy tuuma wala luy. wax nga leen bëggoon au compte pour piéger leen. en retour bien sûr te ñoom xam nañu ko ñooñu ci loolu la ñuy dox moo tax ñëwuñu mais le lendemain bi ñu demee porté ji plainte genre mi ñoo xool certificat médical bi ne ko mais yow ni amul ah. docteur bi bindul fii ne la fille là dañ ko violé la la dame la ne wax na ko moo ñu ko wax nangam ak nangam. gendarme bi jël certificat médical bi ne leen am kon dem leen ngeen wax ko mu bind ko ci ñu delli su Philippe Maguilène Senghor toog fa lu yàgg gendarme bi taal otoom ñëw ne leen ñu ne ko déedéet mu ne indi certificat bi dal di dugg comme yor na tenue boobu munu ko woon xaar mu dugg ne daa daam laa won ko ko nekk yow yaa signé lii mu ne ko waaw maa ko signé démb mu ne ko yow lii nga wax wala da nga wax leneen puisque daam bi nee na yaayu xale bi nee na waxoo ko woon lii nga bind nii leneen nga ko waxoon daam bi ne ko c'est faux lii ma bind nii loolu laa ko wax gendarme bi ne ko indil mu jox ko mu génn neen eh kaay la ñu def xam nga lan la def ñu dellu si gendarmerie CTO jëlaat femme bi ak doom ji yóbbu leen CTO comme mu ngi insister di dëgër bopp ne elle a été violée mais mais bi ñu yóbbu ko CTO un ay professeur en gynéco xool ndaw si ne kii elle a eu aucun rapport sexuel xool ne il n'y a trace de sperme il y a rien qui prouve que il y eu une pénétration donc confirmer li médecin yale waxoon xanaa leer na wax wa wax wax war na mën a jeex mais xam nga li tax wax ji jeexul réew mii ñu nekk nii day na waar gis nga boo nekkee ci nguur gi pay féete nguur gi luñ lay jiiñ lu bon ñu ne mooma dal di ci dugg nag nekk ci réseau sociaux yi di la chargé te réseaux sociaux yi saa wuñ nit rek les médias classiques la télévision yeeg rajo yeeg journaux yi dal di ko jël mu nekk mbamb nga gis plateau yi commencé ah si li mu def nangam si te ñoom jëluñ sax la peine de vérifier le dossier certificat médical bi ci nekk lan la wax ñu nekk rek di tararari alors ñu convoqué la loolu moo ma dugal kaso pour yow coow loolu moo la dugal kaso cette pression médiatique la mais leneen taxul man bi ma ñëwee le juge qui avait le dossier dafa ma ne mais grand la clameur publique vous poursuit la ma ne ko en effet mu xool ne ni dossier bi ne ma bon moi je pense que il faut qu'on opte pour un mandat de dépôt le temps que tout ça se calme et qu'on puisse voir le dossier normalement ma ne ko fet monsieur le juge ñaari ñaari kii interpellation yi ma def yëpp ñetti moo la en effet monsieur le juge fet monsieur le juge mu def mandat de dépôt bi ne ma signal ma signé ma jóg mu boole ma waa ji ñu yóbbu ma prison alors dinañ ñëw ci sa